mbokk yi safoo chaîne bii di AVS TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar yow mii di ma seetaan te abonné goo ma lay ñaan nga abonné te activé cloche de notification bi ndax loolu kat dinañu jàppale bu baax a baax ci suñu cadre liggéey accident bu metti moo am tey jii di samedi yemook 11 mars 2023 foofee ca Taïf accident bu metti moo am ci yoonu Taïf bi tey jii accident bi nag euh, mu ngi dox ci diggante benn 406 ak oto yooyu ñuy wax ay riim accident ba nag euh, bilan bi doy na waar euh, metti na lool ndax euh, gisagum nañ ci ñetti nit ñoo xam ne daal nañ ci ñàkk seen bakkan ak 18 blessés 18 blessés yi nag si biir 18 yooyu am na si 5 yoo xam ne nii ay blessés grave la maanaam ci boobule accident am na si ñett ñu si ñàkk seen bakkan ak 18 yoo xam ne nii ay blessés lañ ak 5 blessés yoo xam ne nii ñoom seeni blessés metti na loolu mbokk yi safoo suivre chaîne bi di AVS TV daanu leen toppal xibaar bi leen wax ngeen woy di abonné tey activer cloche notification bi jërë ngeen jëf